ngali konton kolen na jali yasilola iye kamben kabo dum munya boledi bolodi asalaamaaleykum suñu mbok internet Kéwoulo TV ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar bu baakha baax ñoo fi fii nga xamné modi rond point liberté ci ci ginaaw ñu ñooy sét ñi nga xamné nak modi jaay kat jaaykat yi lawatina nak ñi ñu yëngu ci li nga xamné nak modi moo fëgg jaay mo woloon tay ñi daldi fi teew laajte leen naka la jaay bi di demee est-ce que ñi nga xamné nak nag ñoo di client yi ñoo ngi ñëw ak lan moy été bi lan moy mot été bi ndax gis nañ chaque été saa suy ñëw xale dañuy tàmm benn yëre ba tax na nag loolu moo taxoon ñu gën fee teew laajte leen ndax su fess bi la ab robe la wala lan la mo tax na nag légui léegi lay doon ñi and ci xam lan moy mot été 2024 bi à part tàngaay moom ñëpp xam nañ lii été bi mooy robe yi gàtt ak t-shirt t-shirt ak crop top yu ndaw ak ay sorte yooyu noonu parce que peut-être tàngaay bu dee seddaay bu duggee longu maat la xam nañ loolu mooy été bi tàngaay moom yoroo couleur été ak yu oyof yu neex tàngaay loolu mooy problème bi liggéey waaw xam nga euh, bu dee période tàngaay ak période bi ñu nekk ak bi ñu waaj màggal gi nii nit ñi duñ booyee lu gaaw a jënd mais après màggal des na lu bari boy dañuy commencé jën liggéey carrément ñi dem sorti ñi dem fu len neex place après yu bari day ko da nga ñay bi ci lay gëna a ko comprendre mais fimna ni mom ñi moom ñuy rek après buñ mangalé paré mom liggéey day am moom carrément sax waaw parce que effectivement yaa ñoo wa lool mënu mënul ñàkk nga gis ni ñoo xamanteni ni da nga leen jaay ñu dem ñëwaat wala ñu dem ñëwaat bu dé nga xamné ñi ay nitu ay lañ wala ay nitu moy loolu. di ngi leen delloo sa xaalis rek nga nekk si jàmm quoi ndax yoonu jàmm moom soriwut waaw sa nit ki moom booy wut da ngay moytu ay ay waaw da ngay nekk si jàmm rek ndax place quoi ndax am na yenn client yoom bu ñëwee fekk la nga histoire rek lu ñuy bëgg a dem quoi moo tax nag waaw lii mooy mooy cargo jean yi quoi moom la xale yi di bëgg quoi kargo jean quoi waaw lii mooy lii mooy ay boyfriend quoi lii mooy ay boyfriend quoi li la xale yi rek di toog dëgg neexul lii moom cargo la yaay cargo deux tons la moom rek la xale yu bëgg quoi yaay boyfriend la ba tey ay boyfriend laa lay indil tamit moo nekk nii waaw lii tamit ay jógin la ay jógin la dafa neex si tàngoor yi moo tax les bagages yaa ngi nii zip yaa nii lépp ngi nii daal. xam nga rek loo xam ne daal booy dañ koy soxla ci été bi xam nga instant bi ci été lañ nekk booy ah. dañuy soxla ay kiwisaar ay body affaire yooyu ay deux pièces trois pièces yoo xam ne dañ ci mën a dem plage xam nga rek profité féexal seen xol ci vacance yi bala école a tijji xam nga loolu je pense que dafa bokk ci suñ dund quoi moo tax instant bii nii ñu nekk ci euh, liggéey boobu quoi ànd ak été bi rek def ba mu baax. waaw ñu ngi ñëw ndànk-ndànk rek clients yi moom ñu ngi ñëw ndànk-ndànk rek mais je pense que yeneen été yi nag moo daan dàq quoi. ren xawma dekk bi dafa amul xaalis xaw casque ya dal mais été yi passé dal mo dan mo dan gëna neex par rapport ak été bi ni quoi mais nak mi ngi dox ndang ndànk ñi ngi yalla wa cheru cherut 3 euh, pièces ñu ngi koy jaay 3000 bu dee kiwi saar ñu ngi koy jaay ak body ñu ngi koy jaay 2000 euh, cherul quoi cherul je pense que bagage yi cherut xam nga né bi rafen na torop ci ñi nga xamné ñoy dem place essence bi ni voilà boko solé boko solé ko solee sa di ko mi ngi ni gis nga ko. trois pièces bu rafet la am na am na ay couleurs yu baree baree bari yoo xamante ne ni neex na trop ci été bi waaw képp ku ko bëgg rek ñëwal fii ci rond point Liberté 6 nga laajtee am di Moustapha Mbeng di nga ci am yu rafet am nañ ci ay couleurs yu rafet ci jigéen ñi nga xamante ne nii tàngoor bi daf leen di sonal ñuy sol ay body gàll xam nga je pense que yi dafa neex si tàngaay bi am na yu mag am nañ yu xale waaw képp koo xam ne daal bëgg nga ci ñëwal fii ci rond point Liberté 6 boo ñëwee nga laaj ci Amdi Moustapha yor nañ ci rafet dañ la ko jaay ci prix bu yomb incha allah. waa client yi ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw ñu ngi jot suñu wërsëg fii suñu xëyee suba ba ngoon ku si ne yàlla dina la jox lim la war a jox ku si ne suñu borom dina la jox lim la war a jox yaa xam nag da ngay foqale wala nga ñàkk foqale mais ku fi xëy suba ba ngoon yàlla dina la jox lim la war a jox nga yóbbu ci sa njaboot li may gëmloo daal jaaykat yi nañu ànd ak dal. ànd ak gëm yàlla te xam ne lépp lu am yàlla la. waaw waa xam nga Sénégal ni muy doxee rek Sénégal moom ni muy doxee rek tey mu neex suba mu naqari mais nag dañuy sant yàlla quoi parce que ñun ay ay taalibe lañ ay Baay Faal lañ liggéey lañu gëm moom la ñu xam xamuñu leneen yaa ngi dégg sàcc ñu fenu ñu agressé wuñ defuñu lu ñaaw ñun daal nañu am jàmm rek ñun nañu am jàmm rek. soxlawuñ ku ñu jox ay millions wuñ ku ñu financé soxlawuñ ku ñu def dara ñun daal nañu am jàmm stable fu ñuy liggéeyee ñun loolu la ñu gëm quoi gëmuñu leneen nañ am jàmm liggéey quoi njaay mi nag moom Sénégal moom yaa ma gën a xam ni muy doxee moom secteur informel bi daa xaw a tey day neex suba mu naqadi mais nag moo dañuy gëm rek ànd ak ngëm-ngëm ay góor yàlla lañ liggéey la gëm bon du ñu def leneen lu ñaaw quoi yàlla baax na quoi yàlla moom bon soo xëyee rek moom li nga war a am yàlla dina la ko jox waaw nekkal si li nga war a nekk teelal xëy guddeel wàcc waaw gëm-gëm boobu daal la ñu am. BRT bi BRT bi moom BRT bi moom li gënoon a metti moom jàll na parce que ñun lépp fi lañ fekk bi ñuy gas fondation bi fi lañ fekk bi ñuy kuulee bi ñuy kuulee pont bi fi lañ fekk. bi BRT bi di daw fi lañ fekk bi ñuy defar tali fi lañ fekk lépp fi fekk ah parce que ñun bon BRT bi amul amaloon nañ ko njëriñ ah ñun amaloon nañ njëriñ BRT bi parce que fii rek ñoom seen benn employé mës na daanu fii ci biir feer yi mais ñun ñoo ko dimbali ñun ñoo dem dimbali ko jàppale ko génnee ko yaa ngi dégg wax bon chinois yi fi nekkoon tam amuñu benn problème dañ doon dund ak ñun fii nice amuñu problème préfet sax daf ñu def des fois bu bu ñuy def visite yëpp dañ ñu fii fekk des fois commandant bi da doon ñëw ne ñu tey waa banque mondiale dañ fiy jaar bu ko defee ñun ñu arrêté ñu lal bañ jàll ba jàll ay une heure deux heures ñu lal amuñu problème mais léegi nag BRT bi pare na mi ngi daw Sénégal ku ne xam na ni muy doxee président moo ñu war a jox liggéey mais amul liggéey bu mu ñu jox mbay mi moo fi nekk te ñoom biñ fi toogee léegi yàggagul boobu yàgg am na lu baree bari loo xamante ni tey ñoom munuñ munaguñ koo def dañ leen di ñaanal nag suñ borom suturaal leen yeen bi oyof seen kaw mais nag moom li nga xam ni moo gën a doon priorité mooy ñun waa Liberté 6 nañ ñu jàppale jàppale nag du question dañuy jox xaalis mais ñu aménager ñu fii defaral ñu ko ba mu naayees ñu sori tali bi mën fee toog jot suñu wërsëg yaa ngi dégg du ñun rek ah waa Colobane waa Petersen waa Tëngéej waa Kër Massar parce que man benn marchand ambulant bu am problème cee dugg fi ma toog daf may metti ndax pour man képp kuy marchand ambulant am naa ci am naa ci yow cofeel waaw su may wax nag du ma wax ak waa du ma waxal waa Liberté 6 kase non non non non su may waxal ñëpp laay waxal Kër Massar ak Colobane ak Tëngéej ak tout ñëpp laay waxal yaa ngi dégg wax ji na état Sénégal jàppale secteur informel nan ñu jàppale parce que sonn nañ dëkk bi metti na sonn si dëkk bi dafa metti dafa metti trop boo duggee ci mbedd Ndakaaru yu guddi gi sa yaram day daw nit ñi lekkatuñ ba suur añatuñ ba suur reeratuñ ba suur boo duggee ci biir mayga yi gis nga day fees dell ndax nit ñi toggatuñ reer seen kër yi añ añ ak ndékki dong lan desal seen doon parce que amuñu ñu bëri ci Sénégal ci secteur informel bi lañ nekk. waaye client yi moom nice rek parfois nga gis client yu neex a jaay parfois tamit nga gis client yoo xamante ni dañuy ñuy naqaree jaay trop nag waaw yaa ma gën a xam daal. waaw tukkee am na 3000 am na 4000 am na 5000 am na 2500 tamit. waaw sans dépasse yi nga bëgg rek ay qualité la quoi kenn ku ne qualité yi nga bëgg nag noonu la demee quoi ah noonu la demee yoo yi Angleterre yi Dubaay moo tax quoi daa gën a xam. waa am na xale am na petit taille ba grand yëpp am na yëpp am na moom yëpp ay petit taille ba grand yëpp nice. waaw xale yi moom isaan boyfriend balaase wala ay sufes wala ay jógin quoi ak cargo loolu laa lañ gën a bëgg nag. instant daal loolu lañ gën a bëgg moom. non loolu waaw léegi mu loolu mënul ñàkk moom loolu moom mënul ñàkk si commerçant parce que nit ñi ñëpp bokkuñu nature des fois nga gis koo xam ne dafa tàng des fois nga gis ku sedd des fois nga gis ko neex deret des fois nga gis ku naqari deret ni noonu la yàlla bindee doomu aadama yi ñëpp bokkuñu nature ku nekk ak ni mel mais yow commerçant bi yow mi nga xam ne yaa leen di recevoir yaay xam ku ci nekk ak kiyam ko ak natiiram nga mën ko ànd ak moom ci noonu mais nag yooyu yenn saa yi du ñàkk ay jàppal baay parce que des fois nga gis ko xam day ñëw jël sa bagage sol ko ba pare ngeen na na maam na la na bagage bi bugguma ko te xam nga nit lu muy jaay nga utiliser ko ba pare ne ko lii jëndatuma ko loolu day xaw metti quoi ndax bagage bi ngay jaay boo sañoon kenn du ko utiliser ba pare nga koy jaay des fois daal yu jafe-jafe yooyu la ñuy am a client yi des fois ngis koo xam day ñëw jël bagage bi sol ko ba mu neex ko mu ñëw ne ko ne la bii neexu ma je que bagage bi avant nga koy sol war nga war war nga war nga mën a jël intention jënd ba pare ngay door a sol bagage mais jël bagage su jàmbur bu dee bal sax garaawul mais prêt à porter bu bees tàq waroo ko jël sa yaram ko sol ko ba pare jëw tegalaat ko borom foofu mu war ko jaay loolu c'est pas normal des fois jafe-jafe yooyu ndaw yooyu rek la ñuy am ak clients yi mais dañ koy gérer garaawul ñun moom ay commerçant lañ yàgg nañ ci terrain bi dañ koy gérer mais mënul ñàkk quoi wa loolu mom du faral ni ñank parce que da nga jaay client mu ndaw ko wala mu xat ko mu ñew diko ko nga bëgg koo sancel mu ne mom bëggul sansel da nga ko jox xaaliss taw ñun en général ñun dañu liggéey nonu quoi ñu buñ la jaay bu bu lu jurul sax bo ñu dañ fexal ba sansel même buñ la ko buñ ko amut dañ dugg suñu morom nako almar war mo wan client bu ko neex après ñu nag mom ñoo nekk fi dañ ko dundoko mais parfois loolu mu a ñak mais ça ne pas jikko yëpp bokku ñam am na ñoo xam en général mën ngeen wax loolu ñu comprendre loolu am ñoom duñ wax loolu duñ comprendre loolu am ñoom seen bëgg-bëgg rek la topp mais en général ñun moom loolu mënut a ñàkk ci client mais naxante la rek ndax àdduna lépp teraanga am ñoo xam méttiwuñ loo gis naxante la rek client ngay naxante ak ñoom rek voilà mais yàlla mooy bindal loolu. waaw ñun moom sànde ba moom amul ñu ñooy xool suñu xel prix buñ la bëgg wax rek wax la ko sànde ba yow mi jënd yaay am sa xolu fay mu xoolee xam ne li ñu fay arrangé na parfois danañ jaay client loo xam ne sax duñu arrangé parce que xamul tax danañ ko jaal yoo xam naa mais niki mënul lek lu dul soo tay bo boo ne tey jii li lii morceau bi li la ko bëgg jaay bu yalla waxu ni li ko ba jaay parce que do ko jaay loolu prix mom yamul fenn hmm, carrément mo tax parfois gaay jënd bagage cher mais il faut nga ngay daw yërmande mun na ñak parce que dëkk bee ko laaj dëkk bu nekkon dëkk bi neex yow da nga am yermane da ngay da ngay fi yoo ko bagage mais bagage ñun mom suñu bagage parfois da yéggé ko wacc parfois mu cher parfois mu yomb loolu kon il faut état bi jappalé secteur informel informel nak suma ko waxé du kat kase mécanicien ci lañ bok téri ci lañ bok képp ko xamante sa loko jotul sa ginnaw ngay génn ci mbéd mi di takalé ci informel bi nga bok état nag mënuñu ko pogné ne ko defal par force parce que guñ fi guñ fi quoi dama leen di ñaanal suñu borom yeen yeen bi oyof sen kaw. mais nag na ñu gësu quoi nañ ñu gëstu surtout ma borom cag-cag yi su ma leen gisee sama yaram day daw dañ leen di jàpp-jàpp yu metti jamonoy Macky Sall par àjjuma dong lañ leen daan jàpp mais léegi tous les jours policiers yaa ngi monté ci tali bi di leen jàpp te loolu dafa metti nañ xool nu leen jàppalee bu fekkente ni dafa am ay kayit yoo xamante ni dañ leen koy laaj nañ leen ko wax ñu dem uti ko bu dee ay bu dee kax borom cag-cag yi ñu ngi may dégg ñoom ñëpp nañ dem ci euh, uti ay kax du question ko dama ànd ak dama damay taxaw di leen wax loo xamante ni mooy loolu nit yow nga tak kak si moom takkul kak c'est pas normal yow nga aar sa bopp moom aarul boppam ci ñëpp laay wax man voilà. mais di gën a wax sama jaagate rek ñu gën a góorgóorlu rek gën a moytu yenn clients yi nga xamante ay nitu coow lañ quoi ndax kuy wut tamit da ngay daw quoi dafa quoi. waaw di jaajëfal ñëpp di leen jaajëfal yéen di leen ñaanal si bi jëm si kanam ak kanam quoi ñu dégg ko fépp si barke borom Touba ak weeru safar yi quoi. waa li ñuy mooy góorgóorlu rek xam amila man moo gën a metti moo gën a sonn Sénégal parfois ñu yëkkati jàpp say bagage yëkkati la mais loolu lépp xam nga lan moo koy waral a ah? yow bul gaaw a xaar gis nga nit ki lu mu métti métti métti ci gi li ñu fi dund amul te tey xoolal. liñ li ñu na cinq fois wala six fois parfois daan ngeen ko dégg ñuy yëkkati mais parfois duñ xaadi chaque jour buñ dine xoola garab gi ngay seen fa la ñuy nekk toog fu boog affaire dalaaj ñu ñëwaat te wut xaddiwuñ gars yi dawuñu taaluñu puno xeexuñu ba léegi te ni toogaat te loolu lan moo la ko may ñàkk bañ nekk fii di yenn def yenn te gars mën nañ li ñi def di agressé loolu mën nañ ko mais soxlawuñ ko nit ki lu dul àll bu léwu ñun soxlawuñ ko li def lañ soxla bëgg a ndax lu góor ñor yor na am nañ fit am nañ doole am nañ luñ ko mën a jëlee mais duñ ko def buñ xëyee dañ wut seen bagage dëggal si bu lu ñu yàlla may ñu xam loolu ñu may loolu laay dënk benn jaaykat nag ah bul jël àllu jàmbur bul def leen ndax amilamaan tey yi buñ na amilamaan moo dugg ci kër gi saaj buñ ñëw duñu benn amilamaan xam lu ñu wax fukki amilamaan ñoo def moo tax ah nañ ñu gën a góor góor nañ ko doole lu ñu gën a daw coow nañ ko gën a daw coow parce que nit ki dana ñëw sa bërëbu liggéeykaay sax di la wut pour yàqal la pour yàqal say morom mais da ngay daw loolu parfois trottoir bi li ñuy lal nii am ñoo xam da xam ne saa bu xamoo sax ñu fi aw ñan la dangay gis mu joggi bagage jàmm rien que rek yow yow nga xuloo ko kan la xamoo dala yàqal xamoo du la bëgg a yàqal moo tax en général parfois nit bu fi awee yàqal ne dama naan bàyyi loolu mu sedd moo tax may dénk gars yi loolu ni ñuy daw coow chaque jour ndax coow mu baaxul da lay yàqal rek mais nag euh, wax dëgg yàlla jot na nag léegi ñoo am suñuy place

barki Serigne Touba Mbacke neexuñu buñ sañoon am ay magasin di tijji di jaay comme ñëpp duñ baare benn voie publique mais amuñu pexe quoi amuñu pexe ci lii lañ mën a yaakaar ci lañ mën a dund moo tax actuellement nii ñu nekk ci mais buñ sañoon di am magasin di xëy di tijji comme ñëpp bu ñu wàccee dem ñibbi suñ kër ci jàmm mais comme loolu amagul état nañu compa nañu euh, compagnie ju liggéey Sénégal dama créer ay marché ay marché defal ñu ko ay prix yu yomb yoo xam dañ fa mën a ñëw liggéey. ci jàmm ak salaam bu ko defee dëkk bi daal ñëpp nekk ci jàmm daal kenn du déranger kenn waaw loolu daal lañ bëgg ñun état jàppale yooyu ci ñun ñi man mi ngay wax ak yow man patriote bu mag laa fii nii gaa yëpp xam nañ ma ci ñi xeex ba gars yi falu ci lañ bokk te ba tey maa ngi ànd ak ñoom ba tey maa ngi ànd ak ñoom malgré yenn saa yi nga taseeg benn jeune mu la man dama am déception ci gars yi ndax gars yi bañ ko mais réew kenn du ko defar ci ay 4 mois ci 5 mois 5 ans kenn du ci defar réew moo tax instant bii nii luñ mën a def ñun dañ leen di muñal patienté xam ne incha allah li ci kanam dina baax parce que am nañ ci ñoom yaakaar mais daal nañ mañ fexe daal bu baax ñu xoolaat bu baax ni ñuy travailler ak ak ndaw ñi instant bii nii parce que loolu loolu tamit dëgg la de ndaw ñu bëri ñu ngi ñu ngi euh, wala booy boo xamante ni dafa yor motoom di weer si chaque jour mille ñu jox ko ko moomul sax moto bi daw rek taseeg benn policier mu jël moto bi jàpp ko laaj ko 6000 6000 yoo xam ne amul benn identifié maam waxu la 6000 fan la koy dugal jàpp la. laaj la pièces ana mu nga kii rek mu mun a la jox ma 6000 mu jox la mu def ci poosam dem mais loolu loolu loolu benn amulul état njëriñ jëmalul réew mi ba pare yaw ki nga koy def day day mere état bi parce que day yaakaar état moo nekk ci ginnaaw fekk loolu état nekk ci parce que ah, état amu ci intérêt parce que dugul ci keesu réew bi loolu c'est parce que état bi war na ci xoolaat bu baaxa a baax a mu jël ci ay matukaay parce que benn agent waru taxaw ci tali bii rek moto romb ko mu jàpp ko lekk ci moom 6000 boo xamante ne nii tegu ko fenn. tegu ko fenn bindalu ko kayit defulu ko dara lu six mille boobu daf ko jël ci teeyu bakkanam def ci poosam yóbbu këram loolu wax dëgg yàlla du dëgg du yoon état bi nag xoolaat bu baax loolu noonu su fekkee dafa am benn système boo xam ne moo fi nekk di doxal loolu ba tey na ci état xippiwaat bëtam bu baax mu xool parce que loolu ndaw yi bëri mi ngi leen di décourager loo de barki alxuraan du caaxaan ndaw yi bëri mi ngi leen di découragé loo keroog maa ngi gis émission métan ngañ démb Touré bi rek Pape Gandiaye posé ko question bu mel noonu ne benn jakartaamaan moo ko wax te loolu vérité la lu am la ñun ñu nekk si terrain bi dañuy gis loolu mais loolu état na si jug jël ci ay matukaayam lii lañ leen andiloon fii nga xam ne nag moo di marché rond point liberté 6 ginnaaw bu ñu seetee ñi nga xam ne nag moo di jaaykatu fëgg jaay yi ndax ku ne jaaykatu fëgg jaay nag wax li nga xam ne moo di suufees ak robe beeg yeneen loo xamante naal lépp lu yëngu ci wetu été la loolu moo waraloon ñu daal di fi teew laajte ñi nga xam ne moo di jaaykat yi lan moo nekkoon mode été 2024 bii lii lañ leen andiloon ba tax na nag ñoo leen di jox dig daje ci beneen tam incha allah jërëjëf mali kɔntɔn kolen na jaliya silo la i ye kanbɛn ka fɔ o